بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ñoo ngi sant sunu boroom di ko bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu boroom mu dëkkee dotti waameem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey mooy nekk ñaareelu bind ci dundu alsaxaabiyu aljalil xuzayfata ibn alyaman bu ñu fàttali ko sunu dars bele weesu amoon nañ bind bu njëkk ci dundu saaxibu sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy xuzayfata ibn al yaman waxoon naa leen ni saxaaba yi seen dundu lu mat a xam la ndax bokk na ci li muy dimbalee aji gëm yàlla mooy dafay xam ni ndekete moom kat ñim bëgg a diiranteel ay mag pour tàbbi ajana ñim bëgg a buuxanteel pour tabbi ajana ñim bëgg a bokkal ay place ci biir ajana ay góor lañu woon ak ay jigéen yoo xam ni seen lépp dañ koo jaayeen jëndee ko ngërmandeel seen borom loolu nag lu mat a xam la maanaam mboolem lu ñu amoon ci kaw suuf ñoom dañ koo defoon ay jumtukaay ay matériel ngir waajal alaxira waaye dañoo jaayoon seen adina ngir jëndee ko ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala lidalika radia allahu anhum wa ardaahum wala zaalu fi xayaatihim yàlla gërëm na leen kontaan ci ñoom te fekk ñu ngi dund faatooguñ te xam ngeen loolu bokk yi lu rëy rëy rëy message boo xam ne lettre boo xam ne daf lay wax naan la yàlla nee na kontaan na ci yow yii message di ñëw naan yàlla nee na yow di nga tàbbi ajjana te fekk loolu faatoogoo mbokk yi loolu rëy rëy rëy rëy la law kaana annaasu yaalamuun su fekkoonte nit ñi xam nañ lan moo jara nit ñi ko xëccu ak lan mooy teraanga dëgg tey ñu ngi tàmbale ci ñaareelu bind ci dund xuzayfa yawmul xandaq wa murafaqatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallama fil janna keroog bisu xandaq ak martaba ji xuzayfa am mooy am garanti bu koy wan ni moog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy bokk tàbbi ajana kon mooy li ma la doon wax sànq borom bi gërëm na leen ci faatoogu mbokk yi nettali xusayfa ca xandaq te buñ nee xandaq mooy al ahzab ak xusayfa na mu duggee woon ca mbooloom yéeférie ci ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gëstu ay xabaar ci ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngelaw laa ngi ëpp calmeer gaa ngi ëpp waaye xuzayfa teewut la muy sedd sedd dox na ndigalal yonent bi salaa sallam ci nam gën a matee loolu borom xam-xam yi dañuy wax ni historien yiy jàngale surtout lu jëm ci wàllu guerre stratégie bi nit kiy jaar ba mën a jël ay information ci ay noonam loola ku ko man ci ginnaaw xuzayfa nga ko manee fexe ba yolleeku ndànk roofu ci sa biiri noon te yëguñu la nga jël information yi nga soxla loolu borom xam-xam yi dañuy wax ne ñi koy def ñépp xusayfa leen ci man muhammad ibni kaab al qurazi rahimahullah nee na benn waay ci waa kuufa dafa wax xusayfa ni ko waaw yaa aba abdillah yéen moom fekkee woon ngeen yonente bee waay ñu ne ko waaw waaw xusayfa ni ko waaw mu ne ko tey doon ngeen ànd ak moom xusayfa ni ko waaw mu ne ko waaw yéen bi ngeen gisee yonent bi doon dund ak moom nu ngeen doon def xusayfa ni ko xanaa di jéem rek lun man ci lu koy kontaan loolu ñu taxaw ca waa ji ni ko wallahi bu doon ñun ñoo fekkee woon yonent bi kon duñ ko bàyyi muy dox ak tànkam dañ koy yenu da nga koy yenn loolu mooy xërte na xam nga doomu aadama léeg-léeg xër dana ko yóbbee mu def loo xam ni baax bëgg a baax la ca jublu waaye nag mbokk yi damay wax ni xër du nekk imaam xër julli bu mu jiite dafay jamono xam-xam mooy jiite xër noo topp ca gannaaw xoolal tey kii ak yow yëg-yëg bi ngay am buñ fekke woon yonente bi wallahi dañ koy yenu xam nga loolu mooy ëppal loolu mooy ëppal ndax laa shakka su fekkee wut lu baax la ci jublu saxaaba ya ñoo gën a xam lu baax su dee ngërëmal yàlla akum yonenteem la ci jublu saxaaba ya ñoo gën a xam fa yàlla fa ñuy kojee yàlla ak yonente ba am seen ngërëm foofu nag ci laay sukkandiku wane ne gis nga mbooleem bidaa yi nga gis tey ci kaw suuf ña ko sos amaana ñu bëgg lu baax la xër lañ doon bëgg xër moo leen ko yóbbee mbooleem yoon yi juuyoom njàngale yonent saa sallam mbooleem jaamu yàlla yi ju gis nga ña ko def caay-caay taxu leen a jóg ndax xam ngeen ni ku bëgg a saay-saay wax dëgg yàlla am nga weneen yoon woo jaar wudut ci lislaam waaye nag borom bi defal na leen tawfiq ñoom saxaaba ya ñoom ëpp lu woon moo tax am na benn borom xam-xam bu mag dafa taalif benn téere tuddee ko annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna alxuluwi waljafa yonent bi nga teg ko ci digg bi diggante ëppal ak yéesal am na ay nit yoo xam dañoo ëppal ci yonent bi wax lu ëpp am na ñoo xam dañoo yéesal ba martaba jamu amoon sax ñu di ko ko xañ xusayfa daal ni ko kaay nga déglu ma déglul jàngale bu baax xusayfa ni ko waa ji nee na ko ñun de buñ fekkee woon yonent bi saa sallam duñ ko bàyyi muy dox dañ koy yenu xusayfa ni ko kaay nga déglu ma ma nettali la ñun biñ nekkeeg yonent bi ak nan doon dundeeg moom loolu dana tax nga xam ndax yéen bu ngeen fekkee woon yéen da ngeen koy yenu wala niñ def ngeen di def xusayfa ni ko keroog bisab xanda yonent bi dafa kàbbaar di naafila ci guddi gi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu naafila as ndiir ci guddi gi nee na mu daal di wëlbatiku jàkkaarloog ñun ak saxaaba yi fekk xam ngeen al ahzab te mooy sabab ci suuratul ahzab wàcc nettali woon naa xisa boobu ci suur tafsir suuratul ahzab ak yeneen daal xeer saxaaba gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamante ni ahzab am na ngelaw li di ëpp seddaay bi yegg ci foo xam ni niti la woon naa leen ko ci ay darsu saxaaba yi am na ci ñoo xam ne wallahi dañ doon gas ay kàmb di tab gis nga kaña jinax xeeti rab yooyu di gas ni ñuy def saxaaba yi nee nañ dañ doon gas ay pax dugg ci biir pax mi ngir bëgg a mucc ci sedd bi ndax sedd bu metti bi te it xam ngeen sedd boobu du sedd ab neen comme sedd yi ndax sedd la boo xam ni yàlla moo ko wàcce pour mbugalee ko yéefar yi moom a ngay dégg ci ahzab wa radda allahu alladina kafaru bi ghaysihim lam yanaalu xayran wa kafara allahu almumina alqital wa kana allahu qawiyan aziza maanaam yàlla dafa yabal benn xeeti ngelaw boo xam ne ni mu seddee seddaay gi jégg na dayo nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni ee yéen saxaaba yi kan mooy ñëw ma yónni ko mu doxal ma benn soxla ma ñaan yàlla mu bokk ak man kër biir ajana Xusayfa nee na bi yonent bi waxee loolu saxaaba yépp nit tëkk kenn wuyu tafakkar xalaatal bokk yi ak saxaaba yi ni ñu bëggee woon ajana ak fi leen ajana tolloo ak ni ñu gëmee woon yonent bi ak ni ñu xamee ne lu mu wax dëgg la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni kan mooy ñëw ma doxlu te kat da caa teg lu kéemaane kan mooy ñëw ma doxloo ko benn yitte te garantil ko ni dina dellu si bu soobee yàlla loolu la ci teg kan mooy ñëw ma doxaloo ko benn yitte te garantil ko dina dellu si bu soobee yàlla te bu faatoo maag moom ñooy bokk ajana mu ni saxaaba yi kulluhum ajmaun kenn yëngatul loolu ku xalaat ci ñun mbokk yi saxaaba yi ay xeet di ñëw ay perte di ñëw ay flèche di ñëw ay jaas di ñëw nga gis koo xam ne yonent bi lañ doon fett sallallahu alayhi wasallam mu daw plongé këpp ca kawam pour fett yi dal ci kawam ak yeneen ak yeneen nga gis ku ñu jam yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ci saxaaba yi ñëw di ko ŋànk ak gémmiñam pour dindi ko ba ay bëñam damm ca yi xeeti sacrifice yépp ñi ko def ñoom la yonent bi wax kaay leen ma yónni leen te ma garanti leen ajana kenn jugul loolu ku ko xalaat ci ñun mbokk yi lim lay jox mooy dimension bi nga war a dayoo ba nga xam ni fa la sedd ba tolloo sedd boo xam ni dem na ba yow sacrifice ya nga daan def ci biir xeeje ñi ma woo koo def tey ci sedd bi nee na yonent bi baamtu kàddu gi kenn jugut mu baamtuwaat kàddu gi kenn jugut yonent bi ni xusayfa ma ni oh mu ni ne xusayfa rek laa xam ni yëf yi nag ndax bu tuddee sama tur faw ma jóg yonent bi ne xusayfa xusayfa ni oh mu ne ah mënumaa ñàkk jóg comme yonent bi xam na ni maa ngi fi mu ne bi yonent bi ne xusayfa jugal yow laa yónni Xusayfa ne na ma booyee li ma neex ak li ma naqari daal di jóg fi ma bokkatu woon daal di ñëw parce que sañ ta bañ moom kan mooy jóg kooku tànn sa bu la neex la kum neex tànnal kum neex bàyyi waaye nag yonent bi bu la wooyee kat yàlla danoon istajibu lillahi wa lirrasuli ida taakum lima yuxyikum fii def leen a tànnloo kum neex ñëw kum neex bàyyi waaye nag diw kaay ñëw rek amul sañ bañ amul sañ bàyyi Xusayfa nee na ma ñëw nee na bi ma yegsee wallahi maa ngi yëg ci sedd loo xam ni dafa mel ni ay ay lamset la ñuy xottat ci sama yaram ndax sedd bi ni muy uppee nee na yonent bi ne ko idhab fa duqul fil qawm demal nga duggal ma ci biir yéefar yi fandur ma yasnaun gëstul ma ñoom luñ ci luñ nekk booba ngelaw li foor na guddi gi lëndëm na affaire bi sedd na ah call meer baa ngi fatt nit ñi ci seen bët yi mu ni ko wala tuxadditanna shay'an xatta tatiyana wala tuxadditanna wala wala wala tuxditanna bul def dara def loowu ma la dara même yéefar boo jekk sax bu ko rey xusayfa nee na yonente bi daal di yëkkati ab loxoom sallallahu alayhi wa sallam daal di koy teg ci sama mbagg yi rek mu mel ni genre sophage buñ teg ci sama kaw mu ni yëkkatuma seet bi allahu akbar mu ne yëgatuma sedd bi xusayfa ne ma gis nga loolu loolu kéemtaanu yàlla dëgg la nee na bi ko yonent bi tegeel loxo bi rek sallallahu alayhi wa sallam yëgatul sedd bi mu départ xusayfa nee na abu sufyaan te xam ngeen abu sufyaan abu sufyaan xama ci seen langage yi jamono yi gër ya dëgg la woon bi muy nekk yéeféer ku ñor la koo xam ni daanaka xaayut dafa ñor xom witt mu tabbi wittul mu tabbi gësam mu tabbi gësamut mu tabbi abu sufyaan ci yeewu teem mu xool mbooloo mi gis ni lëndëm na agent secret mën naa dugg suñu biir suñ noon mën naa dugg suñu biir lu ne mën naa xew ci stratégie bi mu am ci wàllu guerre abu sufyaan xel mi ni ko est ce que lii lëndëm gii jullit ñi mënuñoo rocceeku dugg suñu biir rey ab lim ci ñun lan la ko xelam may abu sufyaan mu ni éey yéen nit ñi kenn ku ci nekk ngëbal loxo ki nga dendeel nga xool kum doon bi loolu amee xusayfa nee na bi ma déggee gaa yi wax loolu rek ma ne ah bu fekkee gaa yi turbe nañ ne xusayfa ci seen biir moom keroog moom fa la alaxira moom ndax benn nit la cundub ci yéefar yoo xam ne ñu ngi mer yonent bi saa sallam xool yàlla wax wa radda allahu alladina kafaru bi ghaysihim mer lañ àndal moo xam ne mer mi foo ko takk jéggi na dayoo ci kaw julli ñeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye foofu comme ni ma leen ko nettalee ci léeg-léeg daanaa tudd misaal bu mel nii dama leen di wax ni jullit boo yeewul boo yeewul ah yaag sa iman la nii boole yeew da nga yaakaar ne fi da ngay am iman rek ah affaire bi yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi jàngal Quran yaa ngi jooyal yàlla bu ko defee lu ñëw rek yàlla aar la ci déedéet yàlla am na loo xam da koy bàyyi ak yow de gis nga bu doon loolu yàlla du seetaan sa salam ci oxot ñuy damm ab bëñam di gaañ ko ci jeunam di rey ay saxaabaam rey juróom-ñaar fukki nit ñu mokkal alquran rey fee ay nit def nii def naa def na le bu fekkonte ni maanaam nit ki lu nga far jaare yëkkatiku yàlla aar la ca kon yàlla ñii lay njëkk waaye am na loo xam ne suñu borom da koy bàyyi ak yow loolu nañ ci bàyyi xel baax da ngay gis ci ñun kon dama wàkkiilu ci yàlla ah waa wàkkiilu ci yàlla ba ci lan bu fekkonte ni wàkkiilu ci yàlla yaakaar ni yonent bee yónni Xusayfa garanti ko ni ko digga dellu si waaye yéen Xusayfa yaakaaru leen mënoon naa toog mu ni ah non man am problème comme yonent bi garanti ne dinaa dellu si rek du ma def benn effort loolu nañ ci bàyyi xel mbokk yi bu doon ñu ne mën nañu ne ah comme yonent bi garanti ne dinaa dellu si rek jërul may def benn effort waaye xool yonent bi nee na ko insha allahu di nga dellu si te maag yaway bokk biir ajana malgré yii garanti yépp teewut mu def li nit war a def moo tax gis nga wàkkiilu faw dégg-dégg googu ñu am mas naa nettali lu mel ni benn waaye mu ni ma xam benn paa boo xam ne dafa teg fiiru fiiru janax fiiru janax mu ne fiir gi de mu ñu ne ku ci teg sa loxo dagg mu ne xanaa bu nekkee soob na yàlla ñu wax wax mu ni bu soobul yàlla bu ma tegee sama loxo fiir gi du dagg du ko dagg ñu wax mu daan teg loxom fiir gi ni këtt loxo bi dagg alors fiir goo xam ne yow su waay bu jàppee jinax tipp la koy dagg ci digg bi mi ngi nii xam nga ne day jàppee courant baa ngi nii day maase nga naa bu soobul yàlla du ma maas tax nga dugal ci sa loxo déedéet loolu du wàkkiilu ci yàlla de ba Omar ibn al-Khattab génnee ni gars yi bu leen dugg ci biir ci biir nu mu tuddati ba ba ba Omar nu mu tuddati Omar ibn al-Khattab ne bu leen dugg ci dëkk parce que dafa am peste Abu Ubayda ibn Jarrah ni ko waaw yow ndax da ngay daw dogalub yàlla bu ne ko waaw waaw wëkkat laay def damay daw dogalub yàlla dem ci beneen dogalu yàlla waaw waaw damay daw dogalub yàlla dem ci beneen dogalu yàlla yonent bi moo ni dëkk bu am peste bu fa kenn dugg ku fa nekkoon bu mu génn wàkkiilul ci yàlla waaye nag bu fa dugg de bu fa dugg de lépp luñ ñu la day lore bul ko def gis nga Xusayfa yooyu yëpp teewul Xusayfa nee na bi ma xalaatee automatiquement yàlla nag moo ko defal tawfiq bi ci dimbalu ci ndimbalal sunu borom waaye jaare ko ci sababu mission bi muy doxal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xusayfa nee na bi waa abu sufyan ne ku nekk na téye kim dendeel rek mu ni man balaa kenn def dara rek na nuy nit ki ma dendeel ni ko yow la kan mu ne man la diw doomi diw xusayfa ni ko am na sens damaa defoon sax ki rax ci ki rax ci ñun la fekk moom moo rax ci seen biir gis nga yu mel noonu yu mat di bàyyi xel la seen këf ki di bu tàkkee baax yu mat di bàyyi xel la maanaam jullit bi dafa war di yeewu am na ci buntu yoo xam ne faw nga def ay pexe ba génn ca léeg-léeg nag ñun da ngay jéem jaam i affaire iman wala dëggu wala yooyu ba tax nga sànk sa bopp déedéet demeewut noonu de gis nga jullit léeg-léeg technique yi muy def bëri ci surtout ci ay bu dee ci ay noonam xam nga bu dee ci bu dee bu doon ci xare la fii ne fii bu fi fenoon sax bu foo xam lu dul dëgg du am bàkkaar parce que al xarbu xudwa sa digganteeg sax noonu la gis nga léeg-léeg doomu aadama dana toll ci ay diggante yu mel nii maanaam bu doon affaire dëgg dong nga dëkk wax wax wax lu dëgg lu mu jeex gis nga Ghaylaan al aslami dafa tuub dugg ci lislaam gis nga keroog mi tuub si dix femmes la àndal fukki jabar la ëndaane kooku moom xam naa ne moo gën a dëggal suñ gars yi tey fépp ci kanamu yonent bi tuub yonent bi ni ko waaw jong ma yi la topp nag mu ni ko dix jabar yi yëpp maa leen moom yonent bi ni ko ah fii ci lislaam nag amul takk loo ko dix jabar moom ñeenti jabar rek nga yam léegi nu may def mu ne ko tànnal ñeenti ñi la ci gënal nga wàcc leen ñi ci des nga ñeenti ñi la gënal nga téye leen ñi ci des nga wàcc leen foofu nag su doon loolu la borom xam dañoo xam ne képp ku tuub andiloog fukki soxna andiloog ñeenti soxna da ngay wàcc ñala ñala neex téye ñala neex gis nga Gaylaan mii benn bis mas naa dem ci Kisra Kisra ni ko waaw sa jabar yi koo ci gën a nopp xam nga loolu ab laaj la da ngay toog mbaa mbaa nga noppi rek mbaa sa doom yi koo ci gën a bëgg waaye xoolal tontu bu xekk mam tontu na ba génn ci te kenn du mer mooy la waaja ni woon sa jabar yi koo ci gën a bëgg mu ne xanaa kama mayoon juróomi dërëm yo fekk may na ñëpp juróom ah kenn ku ne day foog ni moom la waa sa jabar yi koo ci gën a nopp mbaa sa doom yi koo ci gën a bëgg mu ne xanaa ki feebar ba keroog muy wér ki ñàkk ba keroog muy am ki sonn ba keroog muy noppal mu ne kooku laa ci gën a bëgg gis nga waxam jooju bi ko Kisra déggee dafa tiit mu ne ko yow mii kaddu yi ngay wax du kaddu yu nituk ordinaire xoolal ki feebar moom laa gën a bëgg ba keroog muy wér ki ñàkk moom laa gën a bëgg ba keroog muy am ki nangam di lim di lim di lim ay mbir yu baree bari gis nga yu mel nii léeg-léeg doomu aadama su ci bàyyiwul xel mën naa am mbetteel te fekk jàpp ne maanaam lépp yàlla dogal na ko rek lu ma neex laay def fekk déedéet gis ngeen ci ay misaal yu baree baree bare gis ngeen Asma bint Umays xam ngeen Asma soxna kan la woon soxna Aboubacar kan moo ko jëkk a takk jaafar jaafar faatu abubakar takk ko abubakar faatu alin takk ko kenn ku nekk ci ñoom am naa ak yow doom benn bis ndaw si daa ne ci waañu yi togg ba mu yàgg rek dégg xale yi jàppante ñetti doom yi doomi abubakar doomu jaafar doomu doomu ali xale yi jote mu ñëw war a àtte xam nga xale yi lan lañ jote kii dañu ko sama bàyyi gën sa bàyyi kii ni ko billahi sama bàyyi gën sa bàyyi kenn ko sama bàyyi gën seen bàyyi yéen ñépp te ndaw si mooy seen yaay ñoom ñëpp mu war a àtte bu doon mën a sunu jigéen ñi tey su waay keroog la ñu tas kër ga waaye xoolal ndaw si ak ni mu amee xibra léegi xale yi seen yaay lañ jël arbitre kan moo gën kan moo gën bàyyi ci ñun mu ni madina ba madina daj góori quraysin yi ma fi xam yëpp yëpp yëpp yëpp màggat mu ci gën Abubakar amul parce que Abubakar ca mag Quraysin ba Quraysin daj jeune bu fi gën a dëgër gën fee jàmbaare jaafar xaw ma ko gone gi waaja mer mu ni ko ñaar ñoo xamante nii de aliyee nekk seen diggante ñetti ñii gisuma ci askan ku leen gën salaam xare na dem yoonam léegi kan la bàyyam gën ca xale ya kan la bàyyam gën gis nga yu mel nii yu am solo la parce que doomu aadama léeg-léeg mën na laa dikkee ci sa buntu diine léeg-léeg mën na laa dikkee ci sa buntu adina xusayfata ibn al-yamani radiyallahu anhu wa arda nee na bi ma defee loolu gars yi commencé kenn ku nekk laaj ka nga dendal yow yaay kan kii ni kaay ma kan moom mu toog fi mu toog nee na dañoo toog ba mu yàgg rek abu sufyan daal ni ee yéen waa qurayshin yéen de xam ngeen ni fii dëkkuñ fi gileem yaa ngi dee parce que ngelaw da doon rey gileem yi de ngelaw li da doon rey ay gileem xoolal gileem ni mu amee doole ngelaw lu koy rey xam nga kon bu ñee la saxaaba yi bañ doon làqatu ñoo yey mu ni nag yaa ngi dee dëggal fas yaa ngi dee xoolal fas ak ni mu amee doole ngelaw lu koy daanal ba di ko rey nee na bi loolu amee abu sufyan daal ni gileem yaa ngi dee fas yaa ngi dee lima lima lim ba àggal mu ni nag bu yeboo ngeen xam ni fi mu nekk nii ku teg cin ngelaw li këpp ku takk xayma ngelaw li daaneel ko abu sufyaan mu ni man moom xaw ma lu ngeen nar waaye pare naa maa ngi ñibbi xusayfa nee na bi abu sufyaan ne ñokket jub bay ngalab gëléemam maa ngi xool jàkkaarloog jumbax bi mu góor ma ni sama loxo bi jub na jub goo xam ne bu ma fettoon rek ci jumbax ba laa jub lan loo tax reyu ko ah yenent bi saa sallam moo ne ko bul laal dara gis nga ak am solo gis nga moo tax gis nga boo nekkee kilifa bul dem ak sa idée bopp waaye léegi nag foofu li ma bëgg a laajaat mooy yenent bi lan moo tax mu ne ko bul laal kenn ak loo ko jekk-jekk te xeex rayante la bu rayoon Abu Sufyaan fu yëf yi mujj ah déedéet Abu Sufyaan dafa nar a tuub loolu mooy tolloo ci surat fatih fa alima ma lam taalamu am na lu yàlla xam loo xam ne xamu leen ko am na lu mu xam xamal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam xusayfa keroog li muy jekk-jekk ju mbaxam abu sufyan bu ko fettoon abu sufyan dina tuub du dee ci kéefa kon lim am ci lislaam dana ko ci am moo tax gis nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ayyadun bi waxyin min allah foofu nag da nga ci gis ni kon ndeke nit boo nekk si kilif bu la digal defal rek fii ak lam la digal dug mooy yàlla xusayfa nee na bu dul woon ak la ma yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ma bu laal kenn mu ni su boobaa kon keroog danaa ko faat nee na bi ma doxee soxlay ba nag ma dellu si waat fekk yonente baa ngi naafila xoolal mbokk yi guddi gi yonente saa sallam di naafila woo xusayfa yónni ko xusayfa dem ca ajat jat ja dox ay soxlaam ba dellu si waat mu ni maa ngi ko fekk mi ngi taxaw di naafila sallallahu alayka ya rasulullah nee na bi xusayfa nee na li ma ji li ma gën a yéem bokk na ci mooy bi ma yonent bi tegee loxo bi sallallahu alayhi wa sallam yëgatuma seet nee na waaye bi ma doxee soxla yi ba dellu si waat muy dama ne dagaj ci biir néeg bi rek xayma jiñ ko defal affaire bi mel ni sum way sedd bi daal lonk woon ci rido yi di ma xaar nee na bi ma dugg see ci biir néeg bi rek sedd bi duggaat nee na foofu maa ngi kof kofi yonent bi seen ma sallallahu alayhi wa sallam xëcc ma ma ñëw mu tëral ma ci peggam ku amoon yërmande la sallallahu alayhi wa sallam xool ponkal mu day na xoseyfa ah yonent bi tëral ko ci peggam fekk mi ngi mbàjj mbalan mu rëy bu soxnaam bu mu terex laayoo woon yonent bi jël ci aslaf daal di ko koy sàngee moom xosayfa xosayfa nee na fam ma sàng sax jot naa faa nelaw lépp mi ngi julli bi yonent bi paree sallallahu alayhi wa sallam wax ma ma daal di koy nettali xabaar yi nga xamante ni moom mooy li am ci noonu ku mel ne ibni ishaq ci assira mi ngi nettali mu ni ca la gaa yi gisee ni fi mu nekk nii musiba am na yàqu nañ yaxeet léegi nañ daal di ñibbi mu ni ci lañ daal di jóg daal di dem ñibbi mu ni loolu nag ca ngay gisee ne xusayfa gañe na ci ngañ maay lu rëy rëy rëy mooy suxbatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallama fil janna suxbatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fil janna wilayatuhu ala almadain noonu la xusayfa nekkee di servir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi faatu muy servir abubakar ba mu faatu muy servir omar ibn alxatab xusayfa am na benn dëkk bu ñuy wax almadain boo xam ne moom xusayfa radiallahu anhu wa arda moo fa nekkoon gouverneur gis nga bu ngeen fàttalikoo ca dund xaalid ibn al walid nettali woon naa leen ay nettali ci yenn xeex yu jot a am ci dund saad ibn abi waqaas kadalik gis nga xeex yooyu xam ko dafa am solo parce que daf ci am ay jàngale yu am solo yoo xam ni ci dund saxaaba yi la bokk te saxaaba yi dundoon nañu bokk na ci xeex yi ci gën a métti mooy alqaadisiya te xam ngeen qaadisiya nag bokk na ci damay wax ni daanaka moo takkarnaaseloo xeex bi doon dox diggante jullit ñi ak waa perse te xam ngeen ni jamono jooju perse yi ak romain yi puissance yi ëppoon doole ci àddina ñoo ko yore moo tax bi jullit ñi demee ba commencé xeex ak waa perse ak waa rome rek ci nga gis ni nag islam nag wax dëgg yàlla mi ngi am doole ndax yonent bi digoon na leen li ñuy tuddee al qasrul abyad muy maison blanche fi nga xam ne foofu lañ koy tuddee nii comme tey jii nga xamee fa la kisra dëkkoon yonent bi giñal na leen ci yàlla ni wallahi di ngeen ko ubbi gis nga bi ñu jógee ci qaadisiya ak la fa xewoon xew fa ak xeex yu metti yi nga xam ne xaalid daf koo jiite woon yéefar yi dañoo mere jullit ñi xeeti mer mu jéggi dayo loolu moo waraloon nag léegi bi ñu jógee qaadisiya bi leen jullit ñi gañee am na ci lenn ci buur ya fa nekkoon ak seeni dagak ak yi kenn xamul daal di daw rëcc bi ñu rëccee daal di dugg si fu ñuy wax nahrashin gis nga dëkk ba mu ñuy wax nahrashin fa lañ nekk ab diir jullit ñi topp leen maanaam njatabal leen rek topp leen ca lañ jógee nahrashin daal dugg si madaari maanaam dugg si dugg si gi yii ngay dégg ma di ko wax mooy rawale liñ jot a am cim koom-koom rawale liñ jot a am cim koom-koom gis nga xeex bi bi julli ñi ubbi madaayin saad ibn abi waqaas moo ko jiite radiallahu anhu benn waay moo ko jox information ni ko yéefari di ñi ngi madaayin te fi ne ñi ngi def ay technique pour génnaat fa rawale liñ jot a yore ci or ak xaalis ñetti fan xam naa ni boo gaawul dem dugg ma daa in dinañ la rëcc te affaire bi du ndànd foy foy du joor du tali géej la te jullit ñi amuñuy gaal déglu bu baax jullit ñi amuñuy gaal te ñetti fan bu ñu sàgganee jullit ñi yéefar yi raw ñu saad xalaat xalaat diggante bi mënuñu koo daw ci ñetti fan gaal dong ñu mën a yóbbu ñu mën a àgg avant ñetti fan te amuñu gaal saad dajale gaa yi ñëw mu xutba leen waar leen ni leen xam ngeen kan mooy saad ibn abi waqaas xam ngeen fi mu tolloon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci al asharatul mubasharuna bil janna bokk ci ñu yonente bi wax ni ñaanal soo ñaanee yàlla nangul la mu ni man saad damay raam damay feeñ damay naaw xawma ban laa ci nar a def waaye géej moom dinaa ko xuus tey dem soobe yàlla allahu akbar mu ne leen géej yoom danaa ko xuus dem mboolem dafa nekkoon ci saxaaba yi ak taabi'u ni ko booy dugg ci géej gi ñu lay topp gis nga xeex boobu bokk na ci li gën a tiital waa Perse jullit ñi amuñu gaal amuñu xottu gaal te gars yi ñu ngi leen di seen ñu ngi xuus ak seen fas ci biir ndox mi ñëw saada dafa tànn jàmbaar yi bokk na ci ñu mel ni Amr ibn Maadi Kariba bokk na ci ku mel ni tulayhat al asadi bokk na ci ku mel ni alqaqa ibni amr kooku la aboubacar sadiq doon wax aboubacar nee na wallahi xeex bi bu taxawee su ma déggee fasu qaqa ibni amrin ñexal moo ma gënal ñu andil ma téeméeri soldaar yuy xeex allahu akbar mu ni ñexalu fasu qaqa ibni amrin moo ma gënal téeméeri góor yàlla yuy xeex maanaam moom ñexal bi la gën a wóolu ndax waa ji ni meloon ci njàmbaarte dañuy wax ne qaaqa ibni amr ak tulayxat al asadi ak nu mu tuddati mat nañ juróom ñoo xam ne dañ leen wax ne yéen moom mën ngeen a remplacer téeméeri nit maanaam ñeme nañu kenn ku ne ci ñoom ñeme naa taxaw ni téeméeri nit kaay leen sax sa tooma ngir njàmbaarte gi ak fit wi bari waa na xeex yoo xamante ni buñ ko amee maanaam léewtoo gi qaaqa ibni amrin moo koy def léewtoo mooy lan mooy bu sàppee yéefar yi taxawee ne sàppee jullit ñi taxaw nii benn jullit mooy génn ni kan moom a ñeme wala benn yéefar génn def noonu loolu moom jullit ñi saa bu qaaqa ibni amrin defee loolu seen xel day daaw gis nga saab bi waqaas yabal lu mat ay nit yu jiitu dem ñi jël xàll wi ñi jël xàll wa ca des waa Perse bi ñu bàyyee ba jullit ñi jub si leen subhanallah gars yi ñoo saay saay gis nga biñ dañ leen a bàyyi ñuy ñëw di bàyyi ñuy ñëw ba ñu jub si rek ci biir ndox mi rek gars yi déclenché seen perte yi pour jéem leen a koj benn waay bu yeewu ci jullit ñi mu ne leen bu leen fi nekk di fayantoo diw kaay diw kaay diw kaay xam ngeen ñooñu ñooy ñan diw ñooy ñooñu jub loxo ñi ñooy ñoo xamante ni loo leen fettaloo ñu fett ko ci kàttan suñu borom gis nga ñooñu la jël teg ci kanam gi ni leen diw fas wala laa bëgg nga luqil ma bët yi diw fas wi laa bëgg nga luqil ma bët yi subhanallah te kenn ku ci nekk fas wi ñu la luqiloo ay bëtam luqiloo ko fi nga toog ci biir ndox mi dafa ci am gaa yoo xamante ni maanaam ni ñu jubee woon loxo kéemtaanu suñu borom la am na saxaaba bu ñuy wax suhayb ibne amrin yéen a ngi fàttaliku dundam newoon naa leen suhayb loolu loo xam ne waa màkka bi ñu koy def si mu ne yéen moom xam ngeen bu ngeen ma sogsotoo xaw ma kuy gañe waaye ba ngeen ma xamee ba tey musu leen a xam ma ma jàmm nag loolu mu xam ngeen ko moom te juróom ñeenti nit ngeen fukki nit ngeen te maa ngi fukki feet xam ngeen xam naa gis nga bi mu ne xam ngeen xam naa gars yi dañoo négocier de ñun xeex andiwul fii alal ji lañ bëgg nga wax ñu fan la nekk mu ni bu dee alal ji ma nga ca barab sàngam dem leen ngeen jël ko suhayb ibn amr ah suhayb ar-rumi bi loolu amee julit ñi jiitu première sàppe bi yegg saad yabal ñeneen ci la saad daal di xuus nag ànd ak julit ñi pour dem fi ñuy tuddee almadain mooy dëkk bi ma lay wax ni xusayfa mustapha nekk gouverneur gis nga bi ñu yeggsee benn waay kese kese lañ ci wax ni moo ci daan bu ñuy wax garqada ta benn waay bu ñuy wax garqada moom rek moom moo ci daanu te heureusement jotul gaañu parce que bi muy daanu mi ngi dende qaaqa ibni amri qaaqa dal di ko yëkkati te la waa ji ne ko lii moo tax aboubacar doon wax naan ajazat nisaau an yalidna mithla al qaaqa ibni amr am nañu wax ne aboubacar moo doon wax la am ñoo am wax ne amara ko doon wax mooy jigéen ñi day tëleeti nañoo jur doom ju mel ni al qaaqa ibni amr bi ñu yegsee ñoom ñëpp ñu génn saada daal ne waaw ñëpp ñëw nañ kenn manqué wul ñu ne déere kenn waddalu dara benn waay bu ñuy wax malik ibni amir mu ne am na sama këll bu wadd ci biir ndox mi mu ne sama benn këll moo wadd ci ndox mi yow rek yaa waddale mu ne waaw malik toog ba mu yàgg mu ne ah man kenn waddalewut ba mu des man mu talal ay loxo mu ne yow yàlla mbooloo mu doy nii man kenn laa ci seen biir doon jihad fi sabilillah nga nga nattuma ba sama këll wadd ci biir ndox mi day wane ne kon maa fi gën a doyadi sama këll bi laa bëggee yàlla nga jël ma ko léegi léegi léegi léegi léegi ngir mu xam ne gënuma fee doyadi fi ñuy waxee rek ñu ngi seen këll baa ngi tëll tëll ci ndox mi di ñëw ba ni mu yegsee saadu la bi waqaas vérifié amul kenn koo xam ni sa xottu dal wadd na ci biir ndox mi ku mel ni ibni kathir bi muy nettali xissa bi mu ni bi leen waa perse séenee am na ci ñoo xam moom ca lañ ñu wëqat daw xaaruñ mu àgg parce que dañ ne ñii moom duñu ay nit ay ginne lañ dëkk boobu ak la fa nekkoon ci xeeti or même balaa jullit ñee yegg sax fekk nañ yéefari toxal lu bare bare bare demaat beneen dëkk ca kanam xusayfa ibn al yamaan yi doon na servir ci dëkk boobu di fa liggéey nekk fa gouverneur waaye jaamukatu yàlla la woon gis nga dëkk ba la muy naat naat jaamukatu yàlla la woon addina dëpp ko te jihaad kat la woon ibnu sirin nee na omar ibnu alxataab saa bu daan yebal benn amir day wax ni hey yéen waa dëkk bi yebal naa diw doomu diw bu dikkee na ngeen ko topp te xam ni maa ko digal nee na bi mu yebalee xusayfa ci madaayin waa madaayin yëpp jullit ñëpp a nekk génn di ko teertu ñu jékki-jékki seen benn waay buy ñëw boo xam ni fas wi mu war sax da koo maf ñaandu nag defe naa maf ñaandu xam ngeen waaw waxuma gaa yi la wax gaa yi defe naa xamuñu maf ñaandu de gaa yi xamuñu maf ñaandu de xamu leen maf ñaandu maf ñaandu léeg-léeg kuy war te yàq nga war nga war lu yàkkamtee koy def donte ko yàkkamtewul dana ko def fas bala nga koy war dafa am lu ñuy tuddee teg waxuma la teg gi ñuy teg pour teg sane déedéet dafa am ak teg goo xam ne tegu por war la comme fasu course yi loolu boo ko jëlee teg ko ci roof sa tànk ci dëgal bi yéeg maf ñaandu woo loola nag boo ne kon képpet sànni yéeg rek ci kaw fas wi noonu toog ci kawam mbaa nga teg lalt bu oyof loolu la ñuy tuddee maf ñaandu mooy war fas wi te wutoog teg kuñ ni yaay gouverneur ngay ñëw ci dëkk yow fas wi nga war sax ak teg sax amu ko ab séri la jël teg ko ci rek maf ñaandu ko rek war dem yoonam gars yi bi ñu séenee xusayfa muy ñëw ñu ñëw ba tiim ko ne ah déedéet kii warta nekk gouverneur daan koy romb dem xusayfa moom it waxul dara mu ko ne dem dugg ci biir dëkk bi ñi àndoon ak moom ci jullit ñi waa dëkk bi daan leen waaw ana gouverneur bi ñu yebal ñu ne waa jee ngeen di seen de mooy gouverneur ñu ni kële daan daw topp ko biñ ñëwee ñi ngi ko fekk mi ngi lekk mburu ak ak ak ak ak bineegar maanaam mburu la yore fii ak bineegar yore fii aw suuxu yàpp loolu la doon añee garab ñoom ñëpp ñu ànd yéemu ci kii ak dëddug àddina gi mu dëddu àddina ni saf abu ubaydata amir ibn al jarrah ak ñi mel ni ñoom ci saxaaba ya gis nga xusayfa kéemtaanu yàlla woon ci dëddu àddina bokk na ci li koy firndeelu amar ibn alxataab xam gum ko xam bi mu dégg ni xusayfa daa war a ñëw madina omar daa gën dem ba ci taatu ngeer yi mu tëdd fa di xool kii ñëw kan la ndax soppeeku na gis nga bi xusay bi mu déggee keleng keleng gi mu xam ne xusay faa ngi ñëw omar yërndu ko ba xool ko gis ni ba muy génn dëkk ba di dem ak tey nem meloon na la mel soppeekuwul ci dara ci adina wallahi omar da koo song dafa jooy mu ni ko wallahi anta axi wa ana axu yow moom dëgg dëgg dëgg dëgg sama mbokk nga ndax gouverneur bu mel ni yow laa soxla koo xamante ni dañ la fal nga lekk xaalisu askan wi defe naa yéen a ngi dégg seen réew mi temps yi ni mu yëngoo moom duma wax sax temps yi at mii ñu génn ak at mii gis ngeen ni mu yëngoo ndax du woon jar mbokk yi ñi nga xam ne yàlla daf leen a nattoo ñu dénk leen xaalisu askan wi ndax yaakaaru leen du woon jar yu mel ni ñu di ko déglu xusayfa nañ la wutal kër goo xamante ni gouvernement bee koy fay mu ni déedéet ñaari yëf laa soxla ci yéen benn bi mooy taaman akuluhu su ma xiifee na ngeen fexe ba ma lekk ñaareel bi mooy ilfu ximaar yi sama mbaam mi na ngeen fexe na am lu mu lekk wala sama fas wi allahu akbar amul benn yoon boo xam ne da nga ko gis muy sol di jaagar jaagari te mbokk yi ku am xel ci ñun mu déglu temps yi nguur ni muy def ak ñiñ jàpp ni nee na ñooy zaamu ndax yàlla am nam amul yàlla xam dañoo lekk xaalis askan wi wallahi bu sa xel demee ci àllaaxira di nga tiit lool yow xoolal simple nguur ak àddina goo xam ne duñ la lekk duñ la wanaasu duñ la yëy duñ la mënuñu laa génn ci dund gi mënuñ lu dul tëj la ak saisir la ak nangu sa alal bu dee ñoom ñoo la teree am jàmm su waay nga topp ci rajo yi tal tali lu nekk nga wax tàgge sa bopp def na lu ne nga def ko ngir lan ngir dañ laa dénkoon xaalisu askan wi tey bàyyil xel ni dafa am benn sew sew boo dama ne dama xamul nit ñi dañ ko dul seetlu wala déet gis nga lekkal benn nit alalam moo gën a simple lekk xaalisu nguur xam nga lu ko waral maanaam xaalisu nguur boo ko lekkee population bi yëpp nga amal affaire yowmal qiyaama gis nga benn waay nga sàccal ko donte sàcc bon na aram na moo gën a simple nga jël xaalisu nguur parce que fi mu ne bu ñu la falee yow xoolal xool leen lii may bëgg a wax li may wax nii xam-xam la ñi ñi ñi nekk ci gouvernement bi xam nañ ko li may wax nii fonctionnaire yi xam nañ ko li may wax nii l'homme d'état yi xam nañ ko gis nga gars yi buñ la falee fa ngay dëkk ñoo ko yore am na ci ñoo xam ni mille et quelques litres essence lañ lay jox par weer sa ration sa lekk ñoo ko yore doo dem mission ñëw mukk lu dul dañ lay fay dañ lay fay coono bi nga daj ci voyage bi te loolu bokkul ak sa salaire te at mi bu jeexee am na ci ñoo xam ne am nañ treizième mois xam ngeen at mi douze la dañ lay fay ba fay la treizième mois plus am ngay indemnité yu lay jox mbokk yi lii lépp kun ko jox wax dëgg yàlla xanaa nga war a mën a doylu waaye déedéet defe nga ni yow nit am na yenn xeeti alal amin yoo xam ni wax dëgg yàlla daanaka waaye nag li ma ci jaaxal nag mooy boo seetloo daanaka ki naan kaay yaa sàcc ak ki naan ko kaay yaa sàcc kiñ naan kaay yaa sàcc ak ki naan kaay dañ da ngaa sàcc daanaka ñoo yam la Abdul Hamid kis ko waxoon rek ba ko Jamal Abdul Nasser tëjee ca Égypte premier ministre ba tijji ko ba mu xutbaa mu ni maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni dimbali na ma bi ma golo gi tëjee xaj bi tijji ma ni golo bi da golo gi da koo tëj xaj bi tijji ko te kat ko ko ko tijji kat waaye da laa bëgg a wax ni ñoom ñoo yem golo gi xaj bi la rek daanaka benn la loolu waxuma ko ngir ni ñee ñii ñoo yem waaye li ci ëpp pour nga topp nit mu yore alalu réew saytu ko ba dërëm du ko lekkal réew ma ah mbokk yi jafe na de wallahi dara jaru bis buñ la jàppee dugal la ci keesu néew gi ah nga bàyyi fi li nga doon dajale lépp wa taraktu ma xawalnaakum waraa zuhurikum nga dëgmal armeel ya ñu sànni la foofu nga wéet fa yow kese nangami milliards yi nga doon wasar wasaree wallahi keroog dina la coûter cher sa diggante ak sa borom parce que nit ñëpp nga amal affaire yow waa Sénégal gépp bu dee ci réew mi la bu dee ci àddina bi waa àddina bi nga amal problème ndax yonent bi nee na wa huwa alqail wa huwa alsadiqu almasduq kenn du ñëw alaxira joggi jàll lu dul dañ lay laaj ñeenti mbir bokk na ci sa alal ji foo ko jëlee foo ko dugal jàpp naa ni foo ko jëlee rek temps bu rëy rëy rëy lañ cay def foo ko dugal ñëw tamit kadalik waaye xusayfa amul benn yo moom bañ na ko ba nee nañ ki mu gën a jëppi muy ki ñëw di ko tagg ñun nag moom da ngay gis koo xam ne suñu waay sa maama defoon nangam sa maama nangamoon bal Sénégal sax ngay gis koo xam ne suñu waay 4-4 bu weex bu weex tàll lay war ah am xaalis te kat dara du liggéeyam lu dut kenn ku ci nekk rek di la taggal say maam keese xusayfata ibni lyamani radiallahu anhu bokk na ci lim gënoon a bañ loolu moo tax daan na wax ni yéen jaami yàlla yi wattu leen buntu fitna yi fan mooy buntu fitna yow abu abdillah mu ni mooy ngeen di dugg ci ñi nga xam ni ay njiit lañ ngeen leen di fenal ngir ñu jox leen ca lañ yore allahu akbar exemple yu mel nii mbokk yi soxla nañ ko lool tey suñuy njiit ñu mel ni fudayl ibnu ayat ñu am leen ca pegg ba ah suñuy njiit ñuy fal gaa yu mel nii nga xam ni soxlaaluñ askan bi benn dërëm ba mel ni abu ubayda amir ibnu jarrah nga xam ne omar da ko xool jooy mu ni kenn ku ne ci ñun rek àddina am na lu mu cof soppi ko ci yow ba mu des xosayfa ba mu des abu ubayda mu ne ko yow moom ñun ñëpp àddina am na lu mu laal ci ñun lu mu tuut tuut tuut ba mu des yow muy abu ubayda amir ibn al jarrah dem bañ ne la yaay gouverneur ministre bi nga xam ne moom lañ fal ci dëkk bi wala gouverneur bi ñu fal ci dëkk bi nga xam ne luwaay buur yaa ko fi yore te amut lenn loo ëppale ñi nga jiite ndax salaire bi nga am sax boo ko amee da nga koy sarxewaat comme ni ko salman ñoom doon defee ak ñeneen radiallahu anhum wa arda tomb bi ci dox mooy suwarun musriqatun min jihadihi fi lfutuhat alislamiya amaan na kenn ñu bari ci ñun nag foog nañ xusayfa sax benn waay la woon boo xam ni jaamukatu yàlla la woon woorkat la woon nangam la woon waaye nag jàmbaar yi fàkk tëdd ci xare nekk ko woon fekk déedéet xusayfa borom xam-xam yi dañuy wax ni boo waxtaanee dundam mën naa bett ñu bari ndax ni mu nekkee woon jàmbaar ci xare moom laay joxe misaal ci Abdullah ibnu Omar xëy na ñu bari si ñun dañuy tax Abdullah ibnu Omar moom jàngale ak dem jàkka jàkk waaraate rek la fekk déedéet bari waa na xare yoo dégg Abdullah ibnu Omar ci ñi fësoon ci sàppee karam ya la bokkoon Xusayfa bi ñuy ubbi Hamadan ca la bokk Xusayfa bi ñuy ubbi dëkk bi ñuy wax Arraye ca la bokk xusayfa bi ñuy ubbi dëkk bi ñuy wax addiina war fa la bokk waaye nag bi ñuy ubbi nahaawënd nag foofu dañuy wax ni bal ci généralu guerre yi la bokkoon moom xusayfa te xam ngeen ni omar nga xam ni futuhatul islamiya yi gën a rëy ci dundam la amoon ku amoon basira la ci kan la ñuy fal ak kundul fal rawatina ci buntu xare gis nga omar li ko doon jotalee xaalid bu ngeen fàttali ko dund xaalid xam ngeen omar ak xaalid daanaka xawoon dañ doon fénqoo bis bu nekk gis nga bokk na ci li leen doon jotale Omar dafa mës a gëm ni fii laay toog ci Madina di régler guerre ba généralu guerre bi warul jël ay décision lu dul daf maa laaj Xaalid dafa gëm ni amirul muminin yoonam nekkut ci front bi moom nañu bàyyi ñun ñu régleel ko suñu bopp lii moo leen loolu bokk na ci li leen doon gën a jotale bal li taxoon Omar nu mu tërati doon wax Aboubacar follil Xaalid bokk na ci lu mel noonu parce que Xaalid dafa nekk nit ku indépendant dafa bëggoon affaire xare moom comme yàlla may na ko ca tey wax dëgg yàlla nag ñoom ñaar ñëpp nag kenn juumu ci waaw loolu nag kéemtaan lay doon nag ñoom ñaar ñëpp kenn juumu ci su dee Xaalid juumul parce que li muy def man na ko gëm na ko xam na ko bi shahadati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kooku kay wax dëgg yàlla war ko bàyyi man di ko orienté bu dee Omar it yàlla may na ko basira ci ilham loo xam ni kéemtaan suñu borom la al imam ibni kathir mi ngi nettali ci siyar mi ngi nettali ci bidaaya wa nihaaya zahabi di ko nettali ci siyar cheikh al islam ibni taymiya di ko nettali ci alfurqan bayna awliya illahi wa awliya shaytan omar ibn alxatab nekk na ci madina nekk na ci madina yéeg ci kaw minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag xam ngeen da ngay xam ne moo mooy waral almulham mooy yàlla moo koy wax moo ko moo ko xamal wa illa amara xamul dara ci kumpa lu dul ko suñu borom xamal jullit ñaa nga ca front ba ca àll ba di xeex mi ngi mel ni ña nga ca ginnaawaatati Kolda di xeex Omar a ngi Madina Omar yéeg ci kaw minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di talal loxo bi naan eh sariya sariya arrièreal arrièreal arrièreal demal ci montagne bi te mi ngi taxaw ci kaw minbar bi saxaaba yépp jaaxle gis nga kàddu googu bi mu koy wax saariya saariya nee na man maa jiite guerre bi booba fekk na jullit ñaa ngi ñuy wër ndoom ba nar ñoo def ni xaalit defoon jullit ñi ca boxot mooy benn montagne ngi yoon seen gannaaw boo xam ne moo gën a kawe te montagne ba ku fa yéeg xam nga ni kay ñaar ñuy xeex ka féete kaw tiim la kay kooku dana la rey nga dee nee na bi omar bi ma di omar saariya nee na ca montagne ba laa toll di dégg kàddu gi téléphone amul satellite amul seen avion yooyu dinaaw te nit du ko dawal amul nee na may dégg yaa saariyatal jabal ma gestu rek seen montagne bi rek ñu julli ñu yéeg nañ ci kaw montagne bi nee na loolu moo leen may chance ñu gañe seen noonu keram kon loolu tamit da ngay xam ni kon Omar moo yaay moom it xam na li muy def waaye nag kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar wax dëgg yàlla yàlla defal na ko ci tawfiq loo xam ne lu rëy la donte nag ci mu jënt lu dund Xaalid rawatina bi mu faatoo wallahi Omar ibn al-Khattab rëcc na lu bare bare xam nga xam nga Xaalid moo njëkk a faatu Omar Xaalid rëccu Omar rëccu na lu bare bari ci ak juuyoo gum doon mu ni wallahi rëccu naa lu bari ci lu ma doon juuyoo ak moom xam na ni kii ku yàlla dëgëral la waaye nag eenuma ko bañuma ko folliwuma ko ngir yàqal ko waaye dama doon bañ ñu dem ba def ko benn ustura mooy benn symbole boo xam dañ naan xaalit moom bu ñëwul xana rek dañ ñuy gañe xeetu pas-pas boobu te Omar ko fiiroon na ci pas-pas nee na loolu doon sàmm xeex bi ñu tuddee na haawënd jullit ñi ak yéefar yi daje bu maanaam boo demee ci albidaaya wa nihaaya ibni kathir moom dañuy ndax dañ koy tuddee fatxul futuux mooy ubbeeg ubbi yi lu tax ndax xeex la boo xam ni kéemtaanu yàlla woon ci différence bu am ci diggante jullit ñi ak yéefar yi xeex la woon boo xam ni deret ji dafa baree baree bare bay wala ngaan ni dex bi xeex boobu amee miata alfin wa xamsiina alfan moom la yéefar yi nekkoon téeméeri junniy nit ak juróom fukki junniy nit xoolal loolu ñu baree jullit ñi nekk talatina alfa fanweeri junni ëpp nañ leen ñetti yoon daanaka ñetti yoon ëpp nañ leen ko wala ëpp na ko sax laay wax téeméeri junni nit ak juróom fukki junni jullit ñi nekk fanweeri junni nit lan moo waral xeex boobu bi ñu dikkee xaadisiya jullit ñi gañe leen ñu dem na rachid ñu dàq leen fa ñu dem madain ñu dàq leen fa léegi nag liñ naan xaj boo koy dàq di ko dàq di ko dàq muy daw di daw di daw di daw ba ñëw foo xam ne mënatul a dem fenn nag fi ne da daal di wëlbati ko song la nag moom lu mu am jël xeex bi loolu moo ko waraloon la maanaam dafa mel ni mooy alxaddul faasil gars yi tongal nañ leen génn leen ca maison blanche togal nañ leen dàq leen togal leen nangu seen alal togal leen tongal leen tongal leen ba ñu dem ba amatuñ benn pexe mu wóor li ne jeex na jeex na gaa yi nag daal ni wëlbatiku nag ne leen nañ songoo ak jullit ñi lu ñu am jël gis nga jamono boobu ñuy songoo dañoo defoon li yéefar yi defoon ca ahzab mooy wër fu ñu déggub yéefar rek woo nañ ko pour mu ñëw jàppale leen ha bi loolu amee omar ibn alxataab radiallahu anhu bokk na ci nim ñim désigné woon pour ñu jiite guerre bi mooy waa ji di xusayfa ibn al yaman benn waaye bu ñuy wax ci saxaaba yi ibni muqrin ibni muqrin bokk na ci général yi nga xamante ni dañoo jiite woon guerre ba bokk na ca kii ñuy wax xusayfata ibni lyamani bokk na ca nuaym ibni muqrin bokk na ca nu'man tamit ibni muqrin nga xam ne ñoom ñaar suñ bokkul ndey ak bàyyi ñoo bokk benn bàyyi xusayfa daal ni omar ibn alxatab bind benn lettre daal ni lettre bi maa ngi ko jëme ci nu'man ibni muqrin lettre bi mooy bismillahi arrahmani arrahim min abdillahi amir almuminin إلى النعمان ابن مقر سلام الله عليك يو ما نجي تامبالي تي تورو يالا ليتر باغي بايكو تي جامب يالا بو ني واخ عمر ابن الخطاب دي امير المؤمنين ليتر باغي جيم تي واجي ني واخ نعمان ابن مقر ما نجي سانت يالا ميغا خامتيني موم رek موم لا ني ورا جامو غيناو لولو dégg naa ni yéefar yi fi mu nekk nii nag dajaloon nañ ñoom ñëpp ca nahaawënd ngir jàkkaarloog yéen jullit ñi ci lim boo xam ni bariwaay gi jéggi na dayoo. Noxmaan de ñaaxal jullit ñi déparal jëme ca ñoom waaye nag pax moo yaakaar ni jullit ñi buñ ca duggee duñ génn bu leen ca dugal garab yu lëndëm yoo seen te wóolu woo ko bul fa dugal jullit ñi risque boo gisit bu ca dugal jullit ñi ndax benn julit moo ma gënal téeméeri million ya ngeen di gañe ca xare ba loolu ti bokk la ci li omar doon jotee xaalit ba tey maanaam xaalit ci boppam benn bis omar ibn xataab daf ko xool ba mu yàgg mu ni fekk distance boo xam ne julit ñi juróom-ñaari fan sept jours war nañ ko ko dox xaalit dox ko ci ñetti fan omar ibn xataab mer ci lool bi lettre bi yegsee omar da cay mer loolu lu tax mu mer ci gis nga Omar li lay wan ni nangu na ni sax Khalid jàmbaar la nag bi muy discuter ak Aboubacar bokk na ci lam ko wax yow xam nga ni Khalid du nelaw du bàyyi kuy nelaw nelaw ko du nelaw amul waaye yàlla defal na ko ci tawfiq loo xam ni maanaam moom dafa mel ni boo ko doon misaal da nga naan kii du nelaw mu ni ko moom du nelaw du bàyyi ñiy nelaw nelaw waaye gis nga Aboubacar ko amoonu dal la gis nga bu Omar di tëbaka dal ndax yooyu Omar ibn Khattab ni ko xam nga lii da doon rey jullit ñi Aboubacar ni ko waaye jotuleen a rey rek alhamdulillah kon gis nga nag Omar Abubakar ku ko jaaxaloon la nag ndax tàngoor yu mu yoroon ci ngëm yàlla waral ko seddaay booba te jub te ngëm yàlla waral ko mu la Omar yoroon Omar daa waxa waxa waxa waxa ba yeggal Abubakar ni ko comme da doon waaj a rey julli ñi te reyu leen rek jàmm am na Omar ni ko lii mooy sama gis-gis de Abubakar ni ko mayit lee mooy sama gis-gis de xam naa Omar xam naa xol bi xawut sedd Aboubacar daal di jóg daal di dóor mbagg mi ni ko maa ngi sant yàlla mi nga xam ne tàngooru Omar wi yàllaa ko seralee seddaayu Aboubacar bi waaye maa ngi sant yàlla mi nga xam ne seddaayu Aboubacar bi yàllaa ko dëgëralee tàngooru Omar ba kenn yebu ko wasalaam daal di jóg dem yoonam romb ko dem kon ñoom ci seen jëmmi bopp yàlla defaloon na leen tawfiq ci buntu xam-xare loo xam ni kenn ku ci nekk la nga doon def ci lu mu mënti tege rek ci xam-xam la defe naa waxtul azan qad xaar nodd jotul aywa kon xusayfata ibn alyaman radiallahu anhu bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon xeex boobu omar ibn alxataab ni ko nag demal ba daje benn barab bu ñuy wax ma soo demee nga campé foofu xaar dinaa yabal yeneen nit yu ñëw léegi foofu am na misaal bu ma leen joxoon ci weeru feeñ na niñ ko doon yëglee daanaka noonu lañ doon doxee yi xam nga julli ñaa nga fële ci raison bële ñée ngi ci front bi di xeex te lettres yi di daw nu mu gën a gaawee loolu tamit jàpp naa ne ko am xel war ngaa xalaat nu mën a nekkee parce que diggante Madina ak Perse diggante Madina ak Rome ni mu soree woon jàpp naa ni leetar di dem ki nekk madina nekk amir di diriger guerre ba leetar di dem leetar di dikk moo tax benn bis bi may joxe misaal ci leetar niñ ko doon yónnee ci weeru koor bay wane ni weer yu feeñ na defe naa ku xam lii may bëgg a waxit misaal booba leer ci yow loolu lu ko waral mooy dafa am fas yoo xam dañ ko doon gudd teg gis nga boo ñëwee fii bàmbiloo am na fas woo xam dañ koy tuddee faso buur moom day lekk di naan kenn du ko takk kenn du ko bayee kenn du ko takk sareet moom li muy xaar rek mooy soxla jot gis nga fas woowu mooy daw ba si boxotaan wala puut fekk weneen fas ma nga toog foofu di ko xaar gis nga lettre bi suñ ko bindee tey ci timis li ëpp balaa suba ci fajar mën naa yegg fa mu bëgg a dem noonu lañ doon jokkalante léeg-léeg gileem lay doon léeg-léeg fas lay doon su ko defee maanaam waa ji moom chaque jour rek kii dawal fas moom mi ngi toog di xaar moom amul fenn fooy dem yow maanaam nit la moo tax gis nga wallahi ku jàpp ni xeeti organisation yi gouverneur yii yii yii xew nii yow xoolal ñii malgré ni ñu ñàkkee woon ay moyens ak ni ñu organisé woon koo xam ne liggéeyu dara moom daal fa mu toog fas wala di wëgg di xaar day jékki-jékki rek seen kuy ñëw di rëppatal rek moom du xaar sax ba mu yegsi gis nga du toog di ko xaar ba mu yegsi déet day jukk rek war a aw fasam taxaw di ko xaar kee bu yegsee salaamullahi aleyka wa aleykum salaam mu këf lettre bi rek tourné na kee dem yoonam su ko defee lettre yi noonu la doon demee ak a dikk Omar ibn Khattab bindaat beneen lettre daal di koy jox gouverneur am bi nekkoon Kuufa muy Abdullahi ibni Abdillah ni ko dégg naa jullit ñaa nga dégg naa yéefar yaa nga naxaawant te it seen lim bari na lool ba jéggi dayoo fal naa la nga nekk yow mii yaa nekkoon gouverneur waaye guerre bii na ko Xusayfata ibni al Yaman ji maanaam mbooloo bi na ko xusayfata ibni lyaman jiite bu demee ba ci noaman ibni muqrin bu fekkente ne dafa faatu moom noaman na xusayfa jiite guerre bi su xusayfa faatoo na benn waay bu ñuy wax nuaym ibni muqrin muy rakk ji tamit jiite façon bii nag soo seetloo yonent bi moom su ko mosaan a def rek ñam wax ñoom dañuy xam ne dañuy faatu moom gis nga bam nee na zaydu jiite bu faatoo na kan am gaa yi fàtte nga na zaydu jiite su faatoo jaafar su faatoo abdullah ibn rawaha gis nga yonent bi saxaaba yi nee nañ saa bu ko yonent bi musaana tegalante nii rek moom kuy dem moom jàpp nga ne yow doo dellu si yow ndax xam nañ ne du par hasard mu defee ko noonu omar ibn alxataab loola la roy ci yonent bi sa salam donte nag mbir ma demee wut noona gis nga waa Perse jamono jooju fekk ñi ngi mer jullit ñi jéppi leen ak wóolu seen bopp xam nga wóolu sa bopp nag mënta passé daf yëfi dof moo tax Omar ibn al-Khattab dafa diisoog saxaaba yi ci Madina saxaaba yi saa bu musaana diisoog ñoom comme Abbas lan la woon ci yonent bi sallam baayam gis nga Omar saa bu musaana diisoo ba noppi comme Abbas bàyyi la ci yonent bi ku foor la woon ci yonent bi te it mag la su diisoo ba noppi day ñëw ci Abbas ni ko ah diisoo nag nit ñi de loo ci xam ci biir diisoo bi ñii naan Omar nañ demal suñ bopp ñii naan nañ dem ba Kufa ak Basra nga campé foofu kenn ku nekk génn benn xalaat bi xalaat yi baree ba bari Ali ibn Abi Talib daal ni ko bul dem toogal fii nga toog ci Madina nga yable te nga xam ne yàlla moo ñuy dimbali Omar gestu Abbas ni ko Abbas loo ci xam mu ne ko li ci Ali xam dong laa ci xam gis nga mbooloo mi yëpp fi nekk nii yàlla moo ñu leen dajaleel ca naxawund pour ñu fekk leen fa alaf leen te nam ko waxee na la amee gis nga bi abbas di wax lool fekk na boo demee gars yi dañoo wóolu seen bopp ba ñetti junni nit leen jëlandoo seeneenoo leen ne leen bu kenn daw yéen même bu ngeen dee dee dee leen waaye bu kenn daw xol yëfi def yooyu maanaam bu fekkente ne ñoom fii leen féete seen gannaaw mooy seen dëkk dañuy dem ba ca gannaaw ñu seene ay nit seen yu gudd la ñuy jël ñetti junni nit la ñuy rangale takk seen tànk yi nga xam ne yow moom buñ lay cor doo daw bu bu sa mbokk yéefar yi buñ gañee nga tekki sa ñu tekki la suñ gañewut ñu fekk la fa faagaagal la fa te gis nga yàlla bu nammee li li li arab yi di wax naan bu yàlla nammee alak nit bu yàlla nammee luqi bëtab nit bant ba koy luqi du ko gis ñoom bi ñuy def loolu ngandam kàmb mi ngi ci seen gannaaw goo xam ne yow waxuma la dara waaye ku leen ba max rek ñoom ñëpp fa la ñuy daanoondoo te te noonu la ko yàlla defee nag fa la fa la jóoru ñoom ñëpp bi jullit ji jàkkaarloog yéefar yi xeex bi nag métti na trop nag métti na lool ba jéggi dayo Nu'man ibni Muqrin moo jiite xare bi donte moom rek moo ci jot a faatu nag Xusayfa mi jot a faatuwut keneen ki faatuwut te Nu'man ibni Muqrin xeex bi taxu koo faatu gis nga wax naa ne la xeex bi dafa metti ba suuf si xoolal suuf si ngay seen deret ji dafa bari bayu rogalaat di wala ngaan Nu'man ibni Muqrin daf doon rëpptal aw fasam fas wi téqatalu ci deret ji maanaam comme deret ji ni mu baree xam nga da ngay xuus pour dem bi fas wi téqataloo ci deret deret ji mu daanoog fas wi bi mu daanoo fi muy bërbëri pour jóg rek benn yéefar seen ko rek fett ko ca lëpp bi fa la faatu waaye gis nga jullit ñi mbokk yi li ma lay wax ci wàllu technique ak yeewu léegi général bi faatu na imagine loolu bu ñu ko waxee ci biir guerre nan lay demee gis nga Aboubacar bi muy faatu Aboubacar Saddiq bi muy faatu mi ngi fekk jullit ñaa ngi sàppe di waaj a jàkkaarloo seeni noonu abu ubayda di seen kuy ñëw mu taxaw xaar ko mu ñëw jox ko leetar mu xool leetar bi leetar bi ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aw bakar faatu na te fekk ñi ngi taxaw pour jàkkaarloo seeni noonu imaginez foofu su su su abu ubayda te ni woon amirul muminin faatu na ban xeetu yàq lay yàq ci courage bi ñu amoon ci xeex allahu akbar abu ubayda woo waa ji ba mu ñëw mu ni ko xabaar bii moom man yow jeex na mu daal di jël numtrati bi lettre bi dugal ko ci terax laayam bebaru bebaru diggali rek roof ko ca daal di kon neb xare allahu akbar wa kadalika même bi amar ibn alxataab di folli xaalid mi ngi leen fekk ci biir xare abu ubayda denc lettre bi bañ pare mu ni xaalid ah man day wax dëgg yàlla musuma bind leetar Aboubacar ni ko damaa bëgg jiite wala nangam waaye leetar bi de moo ma ko bind nee na dalaa folli man la fal Xaalid ni ko lan moo tee ba la ñuy départ xare waxaw ma ko mu ni ko maa ngi doon bañ wax la ko mu découragé loola xaalid ni ko wallahi nga waxoon ma ko nga bañ ma ko wax ñoo yem ci man parce que xeexuma ngir omar yàllay omar tax may xeex mu ne ko insha allah la asmaanna laka wala utiannak dinaa la déggal dinaa la toppal mu wëlbati ko jox ko leen ngay nekk ci ginnaawam kon moo lay wan ni ñoom yàlla rek a taxaw ñuy xeex waaye du woon ak bëgg dal wala bëgg jiit gis nga bi noomaan ibni muqrin faatoo am na ñu wax ni benn rakkam benn rakkam wala magam bu ñuy wax nuayb moo ko yëg am ñu ni suwayd moo ko yëg waaye ala kulin ki ko yëg dañ ko digal ni ko gaawal nga muur ko nëbb ko bu kenn yëg ni faatu na moom général bi ñu nëbb ko muur ko taluñu koo suul teg fële continuer seen xeex xusayfata ibn al-yamani dañuy wax ni moo jiite woon xare bi waaye foofu abla fiihi aw fiiha balaan xasana foofu la ñuy wax ni ci lañ gis xusayfa mu mel ni koo xam ni xam nga léeg-léeg sax nit mën na laa bett mën na nekk jàmbaar waaye fa mu waneeg jàmbaar te mosoo koo gis xusayfa ci la sëkkatal yéefari di leen jañax di leen jañax ñii di daw ñii di daw bañ yegsi ci gaa yiñ seene xusayfa woo gaa yi ne leen nañ leen jiit gis nga biñ leen jiitalee ñetti junni nit xoolal benn junni ñaari junni ñetti junni gaa yi jël leen seeneendoo leen gis nga ñoom ñëpp noonu lañ mbàqoo rek tàbbi ci biir kàpp kàpp kàmb gi maanaam ñoom moom kafa allahu almuminin alqital yàlla fegal leen jullit ñi loolu yàlla defal tawfiq jullit ñi ñu gañe ca ngañ maay lu rëy rëy rëy loo xamante ni borom xam-xam yi histoire dañuy wax ni bokk na ci yi gën a rëy moo tax ma la ibni kathir bi muy nettali qissa bi moom da ko tuddee fatxul futuux maanaam ubbi yi ñu doon ubbi dëkk yi moom bii mooy seen mag moom ndax rëy gi mu rëyoon ak fii nag mën naa laa wax tamit nag daanaka nag fa la dooley waa perse jeexee gis nga ci xeex bi bi ñu paree allahu akbar gis nga yàlla dafa def julli ñi ñu ñu ñu dañoo yee gis nga yeewute gi foo ko takk romb na ko dañoo dugg ci biir palais buur benn jullit seen esthétique bu joxañ mooy comme seen esthétique ndakaaru bii rek gis nga esthétique bi wallahi gis nga ku xamut xamut ku xamul xamoo gis nga seen joxañ bii billahi joxañ bu bon la boo xam ne gis nga joxañ yii yàgg na fi saad nee na damaa ñëw ma xool benn estati estati bi joxañ jëm nii seen seen joxañum Dakar bi seen joxañum Dakar bi mel noonu saad nee na bi ma xoolee joxañ bi ma taxaw estati buy joxañ estati buy joxañ joxañ joxañ daal war a am lu mu doon saad nee na ma taxaw rek ci affaire bi di xool joxañ bi rek di jàngat joxañ bi di ko jàngat di ko jàngat xelam jox ko ni ko gis nga ñii seen stratégie yi ñuy def seen esthétique yi seen xërëm yi di joxañ saa bu ñu joxañee am na luñ joxañ boo ko xamee boo ko xamul saa du ne na ma woo ay jàmbaar ni leen kaay leen jàmbaar yi ñoo ma ne kaay leen ñu ànd ñu xool joxañ bi ñu topp joxañ bi affaire bi sori lool ñuy topp joxañ bi di ko topp di ko topp gis nga biñ toppee joxañ bi dañ ko topp ba ci nekkatam mi ngi jëm ci benn néeg néeg boo xam ni su mu waay niñ ko liggéeyee ak niñ ko kastee kenn mësul gis nu ni mel saa du daal ne joxañ bi xam naa ne keroog muy sotti fii la jëm si dajjil leen ma néeg bi gis nga bi gaa yi dajjee néeg bi fekk na mboolem nguur ak perse seen ak caay-caay seeni or seeni matériel su doon jamono bi ma ni seeni genre de combat ak seeni xeexukaay ak seeni missile ak seeni maam li nga xamante nii moom moo tax ñu naan nguur gi ndeke foofu lañ koy denc joxañ baa jëm foofu saa bi ni waxoon naa leen gis nga lépp est mboolem loo xalaat ci xeeti caay-caay ak fi ñu doon jaar jullit ñi ci néeg boobu lañ ko doon denc bi jullit ñi dajjee ndekete fa la fa ibni kathir day wax ni maanaam jullit ñi ci seen jëmmi bopp waxuma lañ fa màng ci or ak xaalis maanaam saxaaba yi nga xam ne ñoo fekkee woon xare ba taabiuun ya kenn ku ci nekk xaw tuuti nekk nga ca millionnaire moo tax dinaa wax ni gis nga seen xeeti joxañ yi ah baax na bàyyi leen affaire bi foofu rek nay joxañ rek jamale bu gën xamul rek xam naa ni bu ngeen waytuwut boo ko joxañ moom balaa baaraam baa wëlbatiku ñi ko doon fekkee danañ toskare kon xusayfata ibn al-yamani radiyallahu anhu xeex boobu dina xaawoon moo ko jiite woon ngañaay li ci jullit ñi am borom baa ngi ko jaarale ci loxoom loolu nag da lay wan njàmbaarteem ànd ak loolu lépp jaamukatu yàlla woon ànd ak loolu lépp jullikat guddi la woon ànd ak loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko yow anta min ahlil janna mu ngi ñaan borom bi ko defal ñu tawfiq fi dunya wal axira xëy na dundam des na insha allah beneen bind ñu ngi ñaan sunu borom mu booleñ ci ñi nga xam yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum allah wa ulaika hum ulul albab wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in